وقلبك على سادات الأموات أبي الأرادي assalamualaikum warahmatullahi rahmatulahi taala wa barakaatu ngi leen di nuyu te di leen jaar di leen ñaanal jàmm di ñaanal suñu bopp nuyoo bi ak siyaar bi ñu koy jiital Cheikhul Fadila Cheikh Mouhamadul muntaha di ñaan yàlla ko suñu borom sàmm guddal fanam wéral ay cëram ba li mu yéene liggéeyal maam ci yoon bi suñu borom may ko ci lu kawe njort ñëpp noonu lañ koy ñaanal umma islam bi yëpp waaye noonu lañ koy ñaanal ci réew mi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite réew mi mbokk de dellusiwaat nañ ak yéen ci seen émission bu mag bi ñu tuddee xam sa démb muy am fii ci seen télévision bu mag bi di Touba TV ñu nuyu baax baax ak ziyaare ak suñu jëwriñ Serigne Mbacke Faye moom it yàlla na ko Serigne Touba kàttanal ba li fas yéene liggéey Serigne Touba Xaadim Rasool mu def ci lu kawe njort ñëpp di siyaare ak suñu directeur suñu xarit suñu mbokk suñu mbokk auditeur télévision Touba TV ñu koy nuyu bu baax a baax te di ko sant di ko gërëm waaye di nuyu bu baax a baax ak siyaare Serigne Djibli Ndaw directeur ñu ngi koy siyaare di nuyu Serigne Mbacke Faye di nuyu Serigne Mbacke Mbodj ak Serigne équipe bi nekk Touba muy Serigne Ousseynou Mbodj ak Serigne Djibli Khoule mbokk yi dellusiwaat nañ ak yéen ci seen émission bii ngeen tàmmoo seetaan talaata bu jot bu waxtu wi jotee ci seen télévision bi di Touba TV. tay nak bu ngeen gisee table bi ci sama ginaaw xamni ni maa ngi dëkk bu ñu wax Cilmaxa Mbakol Cilmaxa Mbakol nak di dekk bo xamanteni ni ku ñu wax Saxeer Fatma moko ko sanc Saxeer Fatma nak mbokki yi nit ñi di waxe rek mo teggu dënn yi taal jàng yi moom mooy Sénégal parce que yàgg naa di wax ni senegal ay do fi nek ak serigne Saxeer Fatma nak ñaar yépp la bolé won motax muy rewmi mi Fatma dafa ñëk a sanc dëkk bu wax Nguñu ne ginaaw bi la sanc Cilmaxa Ngol waaye nag bi mu nekkee Barguet 38 ans maanaam fanweeri at ak juróom-ñett mu nekk ko buur falu ko Barguet booba lañ moom lañ daan falu mu xëy xëy benn bis rek mu tuub dugg ci lislaam tuubug Saaxeer Fatma bari na ay version ñii ne nañ ab dammeel Birima ma cubb euh, moom la fekk muy julli mu dégg muy wax muy tari ca kaw mu laaj ko koy waxal mun ne ko suñu borom mu ne ko nii nga toll ndax am nga beneen yàlla ku la yilif nee nañ loolu tax saaxeer faal mu tuub ñii nee nañ may seen joor bi saaye ak ni may seen seen joor tolloon ci pouvoir ak doole mu jékki-jékki gis may may seen joor saay kajoor ak bawol lépp ni selaw mu ni ki def lii daal du moroom looloo ko tax a tuub dugg ci lislaam waaye mbokk yi dafa am ñoo xam ne dañoo indiwaat beneen tees maanaam beneen mbir boo xam ne wax nañ moo tax saaxeer faal mu tuub wala boog mooy mooy baatin ba li tax mu tuub mooy faaw mu tuuboon dugg ci lislaam ndax faaw mu am sët yi mu am sët yi mu am nag moom Saxiir ma doy na sëkk ñi ni taawu Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi Cheikh Mouhamadul Moustapha sët Saxiir Fatma la caatum Serigne Touba Xaadimu Rasuul muy Serigne Moutouda Saxiir Fa euh, euh, sëtu Saxiir Fatma la kon sëñ Mouhamadul Moustapha sëtu Saxiir Fatma la Serigne Moutouda sëtu Saxiir Fatma loolu dina leer ci biir émission bi Saxiir ma nag dafa njëkk jël Issa Dieye mu Fatim Penda dafa njëkk a jël euh, Issa Dieye mi nga xamante ni Fatim Penda la sukaabe am ci code Samba ma ma xureja ak jor muy juróomi lingeer juróomi lingeer yoy nak mbokki dañoy yeex a am borom keur manam dañoy yeex a waye parce que lol daana dal borom judd manam parce que boobu ñoom rafetuñu woon manam dañoo dañoo judd ba paré seen judd da da rafet ba paré ñom seen dim rafetul lol nak su la dalé man nga yeex am borom keur ndax ñi lay bëgg duñ la ñi lay bëgg do leen bëgg te ñi nga bëgg duñ la bëgg waaye xam ngeen ni mbokki mag ñi dañoo amone système bo xamanteni ci lañ daan def seen système de communication bi ñu demee ba xam ne ñoom mat na ñoo dem kër sëy jot na ci ñoom ci lañ ñi nañ dem ca àll ba fàq ay socc buñ àggee ñun juróom ñi kenn ku nekk wax ki nga bëgg buñ ko waxee buñ ñëwee wax suñu bàyyi suñu bàyyi mayeñ ñoom ñett juróomi juróomi jigéen yooyu di doomi saaxar Fatma mu juróomi lingeer yi mu joor Code Samba Fatma mu xuréeji ak ak Aysata ñu ànd dem ci àll ba bañ àndee ñu ni kenn ku nekk na nga wax ki nga bëgg suñu àggee wax suñu bàyyi suñu bàyyi mayeen booba saa xeer faal na seen bàyyi ngi dund te booba amoon na doole bi ñu waxee loolu nag ci la ki nga xam mooy Fatma daal ni moom Maawa Ngoone la bëgg ñu jël Fatma jox ko Maawa Ngoone mu am ci Birima benn baat ba ca benn baat ba ki nga xamante ni moom mooy Mokure ji ñu ko koo bëgg mu ni jàmboor saala biige yóbbu ko jox ko jàmboor saala biige mu am ci Mokure euh, yu ko faali Mokure ak joor joor moom ba léegi mbokk yi moo jur mestend joor mu jur Ngoone Latiir la joor ki nga xamante ni moom moo di kon sàmm ñu ne koo bëgg mu ni barakuli mbàbb laa bëgg waaye ki nga xam ne moom mooy Aïssatou Diop nag dañu ko koo bëgg mu ne Moussa Penda Diakhaté la bëgg maam Moussa Penda Diakhaté saay ñu jox ko maam Ndiamé Diakhaté bañ ko joxee maam Ndiamé Diakhaté na ci la ko am ci nga xamante ni moom moo di Absa Ngoné mu jur Ngoné Latyr mu jur Lat waaye mbokk yi dama ci ànd ki nga xamante ni moom mooy Moustapha Diop di sët ci taaxee Fatma ñaari yoon di sët ci gànkal di sët ci sëñ Mor Jàndam moom mi nga xamante ni moom mooy ubbil jotaay boo xam ne kii ci maamam Issa Khër Falma waaye nag mbokk yi ginnaaw Moustapha Diop nag ki nga xamante ni moom moo di euh, Assane Lay di enseignant di chercheur di communicateur traditionnel di borom xam-xam moo ñu waxtaan ci ki nga xamante ni moom moo di Issa Khër Falma fii ci fii ci Thilmakha Mbakol ñu tivi dong kutai moom sawar warna ci semua suñu maam sax xam bis bu satu bis butol ni bis binga kam xam magal bis paris yang disparition suñu maam Lat lagi Ngoone Latyr mi nga xam ne ci Saaxel Fatma la sosu saddu Saaxel Fatma nag dëkk bi ñu nekk nag moom ñuy wax Cilmaxa Cilmaxa Mbaakul Saaxel Fatma moo tu sanc Cilmaxa nag tur Saaxel Fatma la jógee ndax Saaxel Fatma koki mu koki kokki sëñ kokki Matar Ndumbe yi nga xam ne mbokkam la di sëriñam jàngal mbokam seen ñaar mbok bokk ndeeg bay Kaxa so ya sen Jaas suñu bokk ndeeg bay donc mu fekk won ko kooki dal di tup mu jangul ko alxuraan ba ye bam ko yewé nak na ne ko da ngay soppi tour ba pare sanc dëkk bu bees la tudd silmaxa Diop dal di sanc ñaari ma xey Fatma nak ma nga aduna ci sagata sagat ci bir kadior batay nek na nak Barguet pendant 38 ans <coughs> bok ci askan Barguet askan mag Guet nak mo nekkon Kajoor bu ndik ndax Guet mi tambali won sagata Guet sagata Jolof ba yàjjin fini wax yàjjin ben dex gu nekkon avant al aynu madi la dekk sin Abdou Aziz fofu la Guet yemoon donc sa Fatma nag mi ngi donc mi ngi soto ci Njaajan Njaay Njaajan Njaay Abu dardar moy bayam Abu bak ibn omar Sahafan mo bayam kul kodd ngoy ndaw la tudd kul kodd ngoy ndaw donc ma ngone xel ma ngone xel bañ gan bañ gan ak sop gan ak kunu gan ak ngan gan ak galo gan ñu bok ndey ak bay léegi boo poussé yóbbu la ba ca njaajan Sahafan nak nag sëtul ci askanu barget sët na aussi ci askanu brague ndax saxe fan ma ci bu moko jur fan ma ci bu xuróoje mbooj xuróoje mbooj brak njàkk Mbagnick kuman Ndiaye Mbodj sëtuwaat na ci askanu nu yi ndax aussi parce que fan ma kuli kodd ngoy ndaw moko ko jur kuli kodd ngoy ndaw kodd fal ngoy ndaw moko jur kodd fal ngoy ndaw damel major fatim gulañ moo ko jur damel maajoor damel maxorojo kuli damel maxorojo kuli damel masamba tàkku damel masamba tàkku damel amari ngono sabal damel amari ngono sabal damel ci foñugo donc saxar fan mo sëtu ci askan yu mag yep askanu bargee askanu damel askanu brage saxar fan mo nak comme nu ngox lañ nekk na barge pendant 38 ans ba mu nekkee de nag dëkkoon jigéen ju nan Issa Dieye ci néegu geej Issa Dieye mu Fatim Pend mu demal tey natsuka am ci juróomi lingeer ay to code samba Fatma ak Maxroja ak Dior ba mu jógee sagata gen nak dafa ñew njambur daal di sanc dëkk bu nan Ngunjura Ngunjura Diop Ngunjura mu nga sanc ci dibéeri sànqay mbol bataay di sànqay mbol mbol bataay boobu nga xamne bawol la woon moo opposé woon damel Maysa Tend Wejj ak jarbaatam tey Makoddu Kumba Jaariñ donc mu nekk en mille neuf cent en mille ci période boobu la sanc Nguñur a jóg dam jógee Nguñur rek nag la dem kokki nag ci sangam boobu di mbokkam Mataan Dumbe daal fay tuub nekk jullit nag ñu jàngal ko alxuraan nag te mu tërbiyu ko mu nekkoon nag Mataan Dumbe ne nekkoon nag foo mos a nekk buur da fay dem nga yolwaan mu yor potam ñoo geet bi nga xam la fala fa la ay da fa falu mu yol waan fa torox lu déet suwaat ma tàndume nag ne ko kon nak nanguna sa njëbbal daan ne ko nag da ngay ci sant da tey tudde silmaxa jóg silmaxa job lu ci jublu moy la wess won lepp gumbe na lool lu wess won lepp fàtte nak ci ñaaw ci affaire ceddo léegi nak day nekkat nit ku bes nekk abdulit ba fa nak la ñëw sanc cilmaxa ngol dans le ngol mi ngi ko vers les années 1750 la sanc ci Maxangol bi mu toogee nag ba mu ba mu sancee ci Maxangol nag daan ne dutuma jëlatit ab ceddu ab sëriñ kese lay jël daal dem ci askan jawaandu askan ñaaneen ci Nguñure ñaan wetu Nguñure Jóob bi mu sancoon daal fay jël soxna ñaan mu kan yi bara Touré mu Kura Yaasin mu Yaasin Jeng mu Jaxal Bajaan mu Mbesangaan Diouf mu Bursin Maysa Wali Diouf ak Codé Diop daate taawoo taawlo ma taan dumee soxna ñaan mi nga xamné ne da ko dippee mbokkam ma di sëriñam ba sëñ kokki ma tan dumé tek té mudun dun ponne buya mudun dun pen mudun dun mu soxna ñaan mi nga xamné ko dippee mudun dun penn buya ci Ablaye soxna ñaan tek ci bint ki Aminata soxna ñaan tek ci Binta soxna ñaan wa yëmul fofu nak dafa demand ndam ci askan sey jël fa yalla xubbu ku jëkku ma sey am ci aminta yalla ak amudi yàlla aminta yalla dem kokki sëñ kokki njaga isa yee daat fay say am fan daak ak xarimaam ak marema ak pend biir ak mamut aminta ak samb aminta bam demee nag ba ci mujj jamono nag jamono nag askan ki kiyam màgg famiyam kiyam màgg njabootam màgg nag fa la jógee nag daal di ñëw ci sanc ci ma xam mbaakol dañuy dem dañuy ñëw ci xam mbaakol nag fekk mataan lu ma soxna ñaan taaw moom sanc na njiiroo ci wetu kër Mody Yàlla léegi mu ne mu ne mu soxna ñaan yow yaay mag yow yaay yow yaay moom dëkk bi ci maxaw ngol daal koy bàyyi ci maxaw Mody Yàlla nag daal di dem wetu ngiroo fekk fa ma tànn lu ma soxna ñaan bëgg a sanc dëkk ma tànn lu ma soxna ñaan ne ko gone nga léegi ñëwal nga wut sa kër wet ci wetu ngiroo moo fi jógee nga moom ñaar dëkk yëpp moo tax ngiroo léegi mooy kër Mody Yàlla waaw léegi nag saxa faat ma rek daal di ñëw mbaakol nag tund mbaakol nag pour gën a jege sëriñ su mag si parce que sëriñ su mag si yëpp fi la nekkoon xam na sëriñ sant Sile sant Jaxate sant Jaane sant Ndong ñun ñëpp fi la nekkoon sant Touré mu ñëw nag pour gën a mën a jaamu yàlla mu ñëw Mbakol mooy ci ma xam Mbakol bi ci la ko sànc vers les années 1760 waaw année boobu la cilmaxa léegi ba cilmaxa na boobu fii la toog nag ba yàlla moom ko ba fii la fii la bàmmeel bu nekk bàmmeel baa ngi nii loolu moo indi cilmaxa Mbakol waaw Lat Joor Ngoone Laatiir nag ab sëtam la nag moom tam nekkoon jàmbaar dëgg parce que mun na ñaan moo ko jur mu soxna ñaan mu saaxawe faat moo ko jur mun soxna ñaan saaxawe soxna mbay saaxawe soxna mbay jur la jor mm-hmm. waaw nag moom moo continuer œuvre saaxawe faat moom mm-hmm. waaw ci ak njàmbaar ak ci gëm yàlla aussi ndax ñëpp xam nañ diggante Lat Joor ak Mamour Anta Sali diggante Lat Joor ak Ngoon ak ak Maba Jaxu mm-hmm. ba Lat Joor moom tam mujj na moom tam mu indi famille bépp ci maxam bi ci maxam mbaakol bi ba ba muy xeex ak tubaab bi ci maxa bii la jógee daal dem deqal à cinq kilomètres de ci maxa donc daal en résumé daal loolu la amoon ci li may waxtaane ci ci saaxar Fatma ci bon ci la vie et l'œuvre de suñu mam barget sax la fàmm ci ay sëtam ci mbacke gi sëñ Moustapha waaw sëñ Modou Moustapha ak sëñ Baara sëñ Bassirou ñep ay seutum lan waaw daanaka mbàkke mbàkke daanaka ñeent mbàkke mbàkke bu yo lim rek ñetti donc ay seutum lan ndax kon kon ni ñuy wax naan aminte yalla lu mu jur waliw la amut yalla lu mu jur gadmi la donc aminte yalla mo joge ci maxa donc yalla ko jëkku mu ñoom yàlla ko jëkku mu moo ko jur ak saa fam mo jëlé ci maxa ngol donc sey kokke suñ kokki ma me am fa donc samb aminta ak mumut aminta am fa ndak ak kharima ak marem ak pend bi ñoo ñoo jur mbàkk mbàkk yi donc ah sing, sing mutala nak mom mom ki moko ki moy mooy maam mëdum sàmb saxe fan ma donc moy moy moy moy mo jur mëdu ki mudun mudun soxna ñaan mudun soxna ñaan daal matan mataan ndumbe soxna mataan ndumbe soxna mbay mu jur Modou Codé Balla ak Modou Codé Balla Modou Modou Codé Balla moom la ñuy woowee Modou Samba moo jur soxna Fat Tudd ak soxna Mbéye soxna Fat Tudd moo jur sëñ kii moo jur sëñ Mutula ak soxna Mbéye jërëjëf Serigne Moustapha Diop ci noonu nga ñu ubbile ci ki nga xamante ne moom moo di saa xewar Fatma sa maam ñaari yoon noonu nga ko waxee rek noonu la demee kooku mooy saa xewar Fatma lim def nag yombul mbokk yi ndax nguuru fanweeri at ak juróom-ñett xëy xëy bàyyi lépp bi mu tuubee ci maam Maxtaar Ndumbe maam Maxtaar Ndumbe ni ko dani ko ngir ñu gëm ni tuub gi dëgg la dëkk boo mës a yilif na nga fa dem yalwaani bi mu jëlee nag ki nga xamante ni moom mooy soxnaam yooyu nag ba noppi fekk na mu am ñooñu ci la jël ñu ne ko jëlal doomi soxna mu dem daam jël yàlla ko jëkku mu am ci amru yàlla ak comme noonu nga xamante ne noonu nga ko waxee waaye mbokk yi damay dugal keneen muy Serigne Assane Lay di géwél di communicateur traditionnel waaye di di professeur di chercheur di enseignant di jàngalekat di borom xam-xam ah, yaakaar naa say su daanelee kàddu ñëpp leen xam ne borom xam-xam la ñu teewlu Serigne Assane Lay lu mu ñu indi ci ki nga xamante ni moom la ñu waxtaanee muy Saafara Samb laaj nga koo xam ne ci senegal tey lu bëri ci réew mi dañoo askanu ci moom njëritam di njërit lu rafet dañuy wax ne moo tëgg dënd yi doomi yi taal jàngu yi doomi buur yi nga xam ne dañoo sëtu ci moom daa bëri sëriñ si sëtu ci moom bëri loolu tax ñu ne barget war faat moo tëgg dëndi buur yi taal taali jàngu yi ndax bi nga xamee ne suñu borom dogal na mu tuub sanc dëkk bii ñu nekk tey di cilmaxa la ko jiito cilmaxa ngol la njëkk a sanc ne silmaxa naa ci lépp ci àdduna silmaxa mooy gumba gëmm naa ci àdduna sanc daaraay boppam Fatma ci bokku jur xuraja mboj braak mba njaay mbajik borom naasi ak gan yu bëri safut mbaam ñu ne ko lu tax mu ne mbaam du ca dee fa ñuy dalal gan dee su fa yeewu mbaam lu téeméeri gan di ko nit mbaam mucc na ci barget saxewar fatma kulikot dongoy daw wegej wa ko jur kulikot dongoy daw wegej barget mangonem xel comboñ bi mbañ gànna leel fay gànna kulu kulu jàll gar njaak bardago geto get get njaajaan njaay saaxewar fatma nag li tax sénégal gépp sotu ci moom dafa dëkkoo isa jiy ci néegub géej am ci juróomi lingeeri ay sata fatma mukhraja ak jor ak kordu samba dañuy woy nak comme ni ñukoy waxe dañ koy riime li tubab di wax rim mais li ngeer joor mais pour indi a a yi termination motax ñu ay ak fatma ak mukhraja ak jor ak kordu samba mu bàyyi ne doyuluma aw jiw dem jël soxna ñaan gonjox ba kande borom nguy kura yasin jaxer badian am ci mirin soxna ñaan matandu dumbe soxna ñaan ablay soxna ñaan ak binta soxna ñaan mu tuum nak de dootuma jëlati ci ceddo yi damay jël kër ak sëriñ dem jël yàlla xu jokkumba ci néegub seey mu dëkk ndaam moom ci amadu yàlla ak aminta yàlla dégg nga géwéle ne amadu yàlla lu mu jur garmi nga aminta lu mu jur wàllimu ndax amadu yàlla moo dem jolof ñu jox ko fatima ta nguy mu am ca sayna na bo yàlla ñu jox ko biram pende njéeme njote ma ca gën a neen bokko dayim lam koddu njeeɓe jat dañ ko sof yóbbu ko diim bakar koddu biige biram penda farimata alburi jaxeer biram penda tabara tasaan buri get bi biram njéeme kuma borom njaay bi kuma sa jaani dee bukari biige saangule biram kurakan tase daagule biram njéeme yel yel jëleen mbay layti layti cukkuli cukkuli njiglaan njiglaan sare sare njaajaan njaay abor daab daab mu am alburi xaañ la xeexe ngaaj xaañ ngiej ku du kokki wurus naaw dul capitaine sidi bay yang yang jigen ju bax ngeer maral leget jami ju ñeuk leget jami ju muju bañ say bañ betum julle budé jotté gilé baye buna ak sidi ak Ibrahim, ak dam chamagnal xaar ñay ñoñe tay doone alburu sen bay seynabu amadou yalla sa xewar fatma amadou yalla de ko yalla eh, kura mbere kura touré ma jigen tal am ca jor Mberu ak Roqaye Mberu ak fatumata Mberu ak Aminta Mberu ak yalla Mberu yalla jur Xari Jeng a jur fatu soxna fatu Mamadou mam ñu jox ko Xaadim borom nit ñi mom ci Serigne Bassirou fatu Mamadou mam mi ci pencum bop mi ci daru Minam ci amignal xari ci mbey mom lañ denk soxna Bintu Jaxate mom ci serigne mustapha Bassirou lu way di def poroxaan dang cey doole waaye matal na lepp bokk na serigne muntaka mi ci jalbe doone serigne muntaka. Serigne bersiru soxna Fatou Mamadou mam, xare Dieng beru mbero Amadou Yara sa xewer Fatma kon saa xewer ay senegal aminte tama bok ak Amadou nak nday ak bay mom lañuy yox serigne ko kooku njege sey jey ma ci njum mom ci Samba Aminta ak Modou Aminta ak Matar Aminta ak pende Buya ak ndak ak xari maam xari maam a jur burum kayel ak kontar ak mbanjeew ak fandet bàyyi Seex yaaba ak Joor yaaba ak Njaga aminta jur mataar aminta ak Modou aminta yaa ba xare maam moomee nag moo jur aale xare maam ak mbay xare maam ak aminta aminta ñu jox ko xaadim borom jumaa yi jëm am ci Sëñ Modou Moustapha wutu wutu baayam 1927 ba 1945 uufal njaboot gi yiir mag ñi do dajeg baayam siraat sëgg bokk ndey mbaari aminta loo mi daan bind ci jaww ji mbaayam Sëñ Modou Maxtaar mi ñuy jooy te noppeeguñu nga wëlbatiku ci Medine soxna ñaan moo dem jetti nag jël soxna mbay kandik borom kuranguy kura yaasin jaxeer bajaan ak daaro bajaan ak paan bajaan am ceeb moom saa xewar soxna mbay saa xewar soxna mbay ñëw euh, ñu jox ko ngoone laatir moom ca la joor ngoone laatir mu ne doye lu jiw ñu jox ko maxuraja moom damel teñ biram faat moom ca atta bu dëgg ba ca gis moom ca mu du maxuraja cameñal gañ siri ak kumbel ak soxna mbay ak faalo gañ siri ñu yóbbu ko ngumba mom ci amadou makhtar gën siri baye baye lawan wan ji waxaat ñoon di ko jolof sidi gën bamba mi al buri alburi moom ci sidi gën bamba mi ci pinkum jumaa yi ci touba baye maram siri sidi ak dam sidi ak xaar njaay sidi mi ñu denk cheikh gaynde fatma mu am ci seigne abdourahman mi di khalifa bi bokk bayam bare sidi njaay ak makhtar sidi ak mam say sidi ak tala sidi sidi sen baay gañ siri amadou gañ sini saa xewar soxna mbay ñun soxna ñaan sa xewr fatma nga ñew nak ci juróomi lingeeri ño tass ci réew mi ndax ma xuraje dañ ko jox jambor saale bi ge ngone ma daan jaay jaame ca gore mom ca jor ma xuraje ak faali ma xuraje jor ñu jox ko teñ la faali kumba ten jonaay bi mom ca jor ma damel may sa jor jor ma ca safara wu bari bur bu mu dàqu da la gisul wala dàq na sa ni jaay la lañu dénk nak ab sangunun jaxata mu am cen li ngeen ngoone latir ñu jox ko saa xewar soxna mbay moom ca labba ngoone latir borom daan day njàmbaas dàq na tubaab yi ngol-ngol dàq leen gi gis dàq leen daari dàq leen mexe ju jëkk dàq leen mexe ju mujj dama loxol noonu góor noonu pren la parate ke rek pawos koto saa xewar soxna mbay bàyyi mbiriñ soxna ñaan saa xewar faatma bokk càmmeñ bokk ndey mbiri ma ngoone laatin ma xeex kajoor ba mu ko mu siif bawol jox ko ma ko du bàyyim ne ko du ma reeraw yàpp ngay lekk mbuub càmmeñol xurója mbooj ndey demet sàmbalaw bi xurója mbooj mi ñu boom ci gaar bi ci teewaawoon boole ko garab ne ko ko def ndey def ko bàyyi dug day tàkkee nga dem cirib moom it kat saaxawar faat maay maamam ñax calaw ma nga dee guy njuli ca tool ba ma ko doo nga jaxaw kon du juf yaa na njaay mbero ndaw gella ba waaye ma ko du gay ndeg njolloor ga biram faat ma faat ma saaxawar faat ma kon saaxawar faat mooy Sénégal biri birima dafa dem Fatma lañ bu nguraan jox ko bu mu nguraan maawa moom ca demel teñ biram Fatma sadul la dikke mbul jàkkeeri ma samba mbayeng rek la yéen doon dajax ngay ko mu lekke ko këf-këf lakke ko ŋaawaaw ñin la delloo naar ya gànnaar maawu ngoone bàyyim jasi deena ngi jaan dara wi ndekki deena géréw taaru mbul deena njoob jàkkeeri ma samba yaasin deena saate njorom sugar deena diggante cookoog cëmbuleen naaji deena ndañax barkandungu deena cowaan bëgge deena jobaas awa ngoone faal amina jaw brang jàkku mbaag naas yu bëri moom ca Biram Fatma moomee moom la ñu di koddu Diouf yaa na Njaay moom ca ma koddu ak sambu ak mawo ak candeela ak xaar yalla ma ca jaxaw ma ko duñu jox ko ci lor badian ci néegub sey mom ca lama sal la suka bi ci lor badian sey ba ca jam jam jek ya jam nañu ko sirat jam ko mexe ji jek jam ko mexe ji mujj jëm ko ci tol ma samba ci ngos bi ci gat mom lañu denk dénk xaar yàlla battal daali lat fatim ci yasin mar mom ca lama saas ndonga xaar yàlla càmmeñal kuro njéeme mu ne lu may taw ñu jox ko adama ñi ngi bok ndeyam awa mom ca yasin jor ñu jox ko lat suka bi gite mom ca duudu lama sax mako ko ma maasee mom ko gën la yendog sey ci bambe ndimba mbar sen la yendo ndiarim gamu narak to babana ngali ne rañi da set ba ken ko ne yelef sama yasin jolla suka be ci lor ba seba xar yalla batal dali ma ko gay ndeng jollor ga ma do na doy lu may taw ñu jox ko buye biri mo ndu mendaw mom ci njati ci njati buye mi nga xan ci takar gi ci mbuyen gatch ko ci birama sipi ko tol jogo may ndieka bi ci ngacc façon waral lañ ko gatch te gatch wut gatch bokku ndey biri ma buyo mom lañu bolé ak dawras takusani gile ci tol la samba lingeer bi tank bi dam façon gañu bayum ndongo biri ma chef de canton ba ca géewul ma koddu gay ndeg njolloor ga koddu Diouf yaa ne sama maam Njaay neexa way ñañ ko moom lañ ne woon lan ngeen amari ma koddu kumba jaari ñee jong ma Njaay séréer bi teñ koddu yaa ne Njaay jogo be mbar ndandi corondi ko maali Fatime waaye may sa teen di joor nag dañ ko jox joojo mbene yaane ma ca puri moom la ñu dénk koddu ngoy Fatma Binta moom ca bay bayar manel koddu ngoy ma ca baaram bu deretal ba dibéer deena sàq san deena njëlbéer abu daan la soye biram kuro maram mbay caatam may sa teen da ko cawaan moom la ñu dénk ngoone jogab kay demi ci soq bu dëlli bi kuur gu dal gi di yeewu njël mu tawlu ca mudu fall njand afisu alxuraan bi ci daaru salaam bokk ndey mi li ngoone jogab mi ci sigal nañ ko pare xaaya nan ko laañaan njukal مالك المكرم المتادي قال سيد بالقران من لدي نجا بما يديم خير صددي قال سيد بالقران من لدي نجا بما يديم خير صددي جërëjëf Serigne Assane Lay xol yi sedd na yaakaar nga fami bi yëpp ci ni nga woye seen maam Saxeer Fatma te ku way way rew mi jere jërëjëf pap mustafa di nuyu bokki nga xamanteni ñom ñoom doon seetaan ñu ziar bax soxna Kiné Mbacké moom Serigne Cheikh Assou moom Serigne Bassirou di sët ci Saxewar Fatma waaye soxna Ami Ndiaye moom Baara Sidi di sët ci Saxewar Fatma juróom-ñaari yoon ak soxna May moom soxna Mbendarma ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waaye di siyaare bu baax a baax soxna Bali Mahfous moom ñu ngi koy nuyu baax a baax mi ngi dénk sëñ soi moom Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Fatah ak mboolem ñi nga xamante ni suñu xarit la ak suñu soppe jërëjëf Serigne euh, ki nga xamante ni mooy Serigne Ousseynou Mbodj waaye du ñu fàtte bu mag bi muy sëriñ Ahmadul Muxtaar xalifa Daarul Xuddus nga xam ne moom it day bàyyi xel émission bi te di ñu seetaan waaye di ñu encouragé ñu ngi koy nuyu baax a baax te di ko siyaare di ko ñaanal jàmm mbokk yi kooku mooy réew mi kooku mooy saa xewar Fatma mooy mooy maam yi Cheikh mun Muntaxa mi ñu doon ubbee mi ñu ubbee jotaay bi yàlla na fi yàgg loolu te wér ne ko Assane lay waxee noonu rek la demee ndax kenn ku ne xam na ni xëri jëng yàlla mbéru amul yàlla saa xewar kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba talaata ak jàmm incha allahu rabbi ci beneen émission ci beneen dëkk ndem soob na borom bi Ousseynou jërëjëf